يا ابن الذين TFC Dieng et frères communication waa kër Serigne Balla Fally Dieng mbokk yi loo leen bëgg ci téléphone lu ci mel ni chargeur original ay écouteurs yu baax MP yu mucc ay waaye yemuñu foofu am nañ ay télévision yu baax ak façon bu ci bëgg rek am nañ ko am nañ 55 pouces 45 ak 43 ba ci 32 pouces ak 17 pouces ak ay yu ak marque bu ci bëgg rek am nañ ko lu ci Samsung Tecno Itel ci gàttal lu sa postol rek soo demee dinañ la ba nga am li nga bëgg waaye mbokk yi muñu foofu am na ay power bank original da ngay chargé ba mu fees rek nga ànd ak moom di ci chargé sa téléphone ay blindé original ngir protéger téléphone pour bu daanoo bañ a yàqu waaye nag jeexagul am na ay MP original yu neex ci safaruk Sëriñ Bàmba gi mbokk yi ci gàttal DFC communication wàkkar Sëriñ Balla Fara Dieng fële lépp di baax ngir mën a jokkoo ak ñoom ci numéro yi Birane Dieng 77 735 71 28 wala ngeen jokkoo ak 682 66 59. DFC. Dieng et Frères communication waa kër Serigne Balla Fall Dieng ñoo leen di ñaanal màggalu jàmm. يوافني سمي عن الصيام وألتني بمرئ البشار